asalaamualeykum wa rahmatullahi wa maa ngi nuyu ñëpp di leen ndokkeel ci weeru màgg wi di weeru rajab waaye ci bis bu tedd bii nga xam ne bis la buñ jagleel jokk bokk ak fedd li kóllëre ak partiliku ak jàng ak roy ci suñu mag ñu baax ni jiital ci nuyoo bi kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew ci jataay bi di nuyu ak ndokkeel Cheikh Mouhamadou Fadel Bousso ak bokkam yépp yi teew ngir ànd ak moom ci teraanga jure ji nga xam ne waa kër Cheikh Mouhamed Fadil indil ko ko tey ngir roy ci seen tànki kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo daa doxe noonu ñu ko ndokkeel bu baax di ko nuyu di ko ziyaara di nuyu bokk ci teew yépp ak bokki taalibe yi di ndokkeel bu baax ak tatagal daayira seti Cheikh Mouhamadou Fadel yi ci xalaat yu rafet yu ñu am ak jéego yu am solo yi ñuy séqi di ko sof ci seen jéego yi waajur yi fi nekk ak ya jiitu mu sofe ci jéego yi kilifa gu mag ga di ko rafet lu baax baax ñaan yàlla dëgëral leen di sant bu baax suñu mbokk mii Cheikh Seydil Muxtaar Ka ci ni mu ubbee jataay bi leeral mbokk yi lu bari lu ñu war a xam ci ko xamutoon war koy fàttaliku ci ñi ko xamoon ak bind bi nga xam ne joxe na ko ci kilifa gi nga xam ne moom lañ jagleel tey bis bii bind bi nga xam ne joxe na ko ci moom fàttali ko ci nga xam ne ñi ne ci keppaari kilifa yépp war nañoo jël bind boobu te jariñoo ko kon fa tabaarakallah axsana xaaliqiin lal na jataay bi waajal na ko ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ñaan sunu boroom defal nu tawfiq ba lii ñu tànn tey bëgg ñu waxtaane ko ni ñu amee tawfiq ci barab bi ñu ko indi amee ko tawfiq ci tànn li ñu bëgg ñu waxtaane ko ñun tam sunu boroom tawfiq ba li ñu ciy séentu ci nun ñu mën koo taxawee su ko defee ni mu ko waxee li ñuy bëgg a waxtaane mooy taxawaayu Cheikh Mouhamadul Fadil bu am solo bu dëgër te rëy bi mu amoon ci dëgëral jàmm mi réew mi te muy loo xam ne ci jamono jii nu tollu soxla nañ ko lool ndax jàmm ci la lépp xaj ci jàmm lañuy mën a taxawee suñuy warugal suñu diggante sunu boroom ci jàmm it lañuy mën a tàggoo luñ jariñoo ci dundut àdduna gi jàmm it di lu rëy lu am solo ci lislaam lu suñu boroom fonk ba sax jàmm bokk na ci melo yi ñuy melal sunu borom bokk na ci turam yi assalaam nga xam ne mooy ki nga xam ne daa jëmm ji am jàmm te bëgg ko te di ko maye mu sant jaamam yépp ñuy bëgg jàmm te di ko wax te di ko dox tey fàttali ko ak am soloom saa su ne ba tax mu ne leen ku ci taseeg sa moroom na ko yëgal ne jàmm nga ko yéene moom nga ko ëmbal moom it mu wan mu wax la loola ngeen def ko muy seenum nuyoo muy asalaamualeykum waaleykum salaam wa muy sant jullit bi saa yu jullee ba sëlmal mu fàttaliku ni jàmm amee solo mu fàttaliku ne yàlla jëmm la joj bokk na ci meloom ku am jàmm la te di ko maye te xam na jàmm it ci moom lay jóge ci yoon wi mu rëddit jaar ca la ñuy amee jàmm te jàmm la fi nit war a nekke di dox lu koy may jàmm it ëllëg bu ëllëgee mu mujj ca këru jàmm ga moo tax ku julli ba sëlmal di wax allahuma anta salaamu wa minka salaamu wa adxilna aljannata daara salaami tabaarakta rabbana wa taalayta yaa sa jalal ikram yi fàttali sa bopp solo solos jàmm ak taxawaay bi nga ci war a am jàmm ko noonu la amee solo ndax ci la lépp xaj ci la lépp di sottee moo tax lépp lu ñuy wut dañuy wut jàmm ba am ko ba noppi door a tal leneen jàmmi e, àdduna ak jàmmi àllaaxira su ko defee nag jàmm day tàmbalee ci nit ku nekk daal lépp lu baax da koy tàmbalee ci yow tànkam nit ki kon jàmm da koy tàmbalee ci boppam e, lawal ko ci di ko wër ba cim réewam doo ko jàllale ca bitim réew ci àddina sépp ndax wa wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa bu aw ay am fenn ba sori lu mu la sori sori ba nga ba nga jàpp ne mënta agsi ci yow ay mëtta xeeb kon fu dara xewee rek lu dul jàmm na ñépp fexe mu daldi jeex jàmm xew tey jii nag kon ñu bëgg a waxtaanee taxawaayu Cheikh Mouhamadou ngir dëgëral jàmm ci biir réew mii ñu nekk loolu bu ñu bu ko waxtaanee dañ ci jàngee ne ñun ñii ñépp ku ci nekk am nga taxawaay boo war a taxaw ci saxal jàmm fa nga nekk lawal ko ba fa nga mën a yem bu ko ñépp defee ci réew mépp ñëpp am jàmm bu ko réew yépp defee àdduna jëpp am jàmm kon dañuy fàttali lu ñu war a def buñ ñu ko xamee jàmmi réew bu ko waxee mooy jàmm joo xam ne daj na kapp réew mi mooy ñi ne ci réew mi dund ñépp nekk ci seen jàmm mucc seeni bakkan mucc seeni moomeel mucc suuf si ñu dëkk mucc li ci nekk lépp mucc loolu la ñu tudde jàmmi réew jàmm jooju nag dafa am yu war a am yu koy yu koy yu koy taxa mën a am ginnaaw coobareel yàlla ku dogalam dafa am ay sabab yu jaam ñi war a taxawee ay taxawaay yu war a yu ñu yoo xam ñu dëkk ci dem ñoo ko war a taxawee ngir jàmm jooju mën a am bu amee it mu mën a dëgër kon am na ay mbir ay taxawaay ci diine yu ñu war a taxawee ngir saxal jàmm ci am réew am nay taxawaay yu ñu war a taxawee ci wàllu politique ngir jàmm mën a am cim réew am taxawaay yu ñu war a taxawee ci wàllu koom-koom ngir jàmm war a am am ay taxawaay yu ñu war a taxawee ci ci diggante nit ñi dundin wi ci diggante nit ñi di gàmm na am am taxawaay ñu war a taxawee ci cosaani ci nit ki fonk cosaanam ak dëgëral ay gis-gisam di jàmm na am kon daal am na lu ñuy tudde al awaamil ad diiniya wa siyaasiya wal iqtisaadiya wal ijtimaaiya wal ya yooyu yëpp nag mbir yëpp nga xam ne dafa war a daje jàmm doog a mën a sax dëgër ci réew dañ ciy jaar buñ ciy tudd rek jéem a xool taxawaay ba ci Cheikh Moufal taxawoon teñ fexe ba waxtaan wi bañ a gudd lool ndax kilifa yi fi teew jamono toll ci xataay euh, lii laaj waxtaan li mu laaj mën naa mu yaatu laaj nag yaatu waaye ñu jëm ko tënk gàttal ci kem kàttan te ñaan suñu bon defal ñu ba mu leer euh, balaa mën a jàmm mën a am ci réew dafa am ay ci diine yu ñu war a taxawee moo ñu jëmbat gëm yàlla ci xoli doomu aadama yi ndax nit xol mooy nit yonent bi sallallahu alayhi nee na am na ci jëmmi nit ak cër bu ci nekk ci biiram bu baaxee lépp bu baax su bonee dara du baax mu ne loola mooy xol kon ku bëgg a defar nit xol ba ngay jëkke ci xol boobu lépp lu ci nekk mooy génn ci biti kon jëm ba gëm yàlla ci xolu nit ñi ba nit ñi am jàmm ci seeni xol li mën a tax nit am jàmmi xol mooy mu gëm yàlla wéet loolu mooy may jàmm nit ala bi zikrillaahi tatma'innul quluub nit nag bu jàmm mu nekkee ci xolam loola lay feeñal ci biti di ko wax ak a jëf ak jëflante moo tax kon balaa jàmm nag am tim réew dañuy jëmbat gëm yàlla ak wéetal ko gu wér ci xol yi jëmbët ragal yàlla ci xol yi jëmbat jikko yu rafet ci xol yi loolu mooy taxawaayu diine nga xam ne loolu moom bu amee bu nit ñi gëmee yàlla tënk ci ay ndigalam bàyyi ay tereem rafetal seeni jikko amal jàmm ca barab ba ñoo ñuy dund day daal yomb kon loolu taxawaayu diine la yeneen taxaw yi ñëw yépp itam sax mën a wax taxawaayu diine la ndax moom bépp taxaw bu nit war a taxaw ci ci bépp ak jullit lépp lu muy def rek ci ay yëngatoom moom diine ko koy sant moo koy wan na mu koy defee kon yeneen yi war a ñëw yépp sax yooyu diine la waaye dañ koy tudde neneen rek ngir bëgg a mën a leeral waxtaan Cheikh Mouhamadou Fadil nag ci taxawaay bi mu taxawee woon ci jamono di kuutaayul Sëriñ Tuubaa ci njaboot bi ñu tudde xilaaf tax di taxawul sëriñ bi njaboot geeg taalibe yi ak diine jeeg yoon bi taxawaay boobu mu ko taxaw woon kuutaay loolu loolu mooy kuutaayul taxawaayu diine ndax sëriñ ñépp xam ne daa fekkoon lislaam tumuranke ci biir réew mi jaxasoo lëj bari jafe-jafe mu ñëw di jënti ko leeral ko yeesalaat ko ba tegaat nit ñi ci yoon jëmbët ci ñoom wéetal yàlla ak pas-pas yar leen ci dëggu ak sellal ak njub ak ragal yàlla defar seeni jikko laabal seeni xol ba teg leen ci yoon ba ñu niroog ña nga xam ne ñoo àndoon ak yonent bi sallallahu ci jamonoom mu bàyyi fi mbooloo moomu bàyyi yee ko ab taawam bu sell ba Cheikh Mouhamadou Moustapha mu njëkk ko wuutu ci boobu taxawaay di ko sàmm di ko rafetal di ko yokk di ko jëmbat di ko suuxat ba yàlla wàcce ko liggéey radiyallahu taala anhu Cheikh Mouhamadou Fall wuutu ko ci taxawaay boobu moom it di taxaw diine ji di sàmm njaboot bi kon liggéeyam bépp ci diirub euh, ñaar fukki at euh, ak ñett ba ñaar ak dara di ko tàmbali 1945 ba 1968 bi ñu taxaw bépp taxawaayu diine la lépp lu mu doon def rek diine la ko doon defal ci ndigalul sëriñam di yaakaaram di suñu yaakaar ak Cheikhul Khadim radiallahu anhu kon da doon dëgëral pas-pas yi nit ñi den xiir ci wéetal yàlla ak jaamu ko di di leen soññ ci rafetal seeni jikko ak seeni jëflante di leen soññ ci ragal yàlla ak wartandikoo sàmm ak wormaal lépp lu yàlla wormaal te bakkan yi doomu aadama yeeg seeni alal ak seeni dar bokk ci ci gën a wér rëy te yooyu suñu ko wormaalee jàmm daal di am daal am kon ci taxaw boobu la woon ci diine kon jëfam yépp luy dëgëral diine la woon te su diine dëgëree ci xol yi feeñ ci cër yi am feeñ ci jikko yi su boobaa jàmm danaan ñooyu te taxawaay bépp kon euh, luy dëgëral diine la mu di ko def nag ci yoon wa ko sëriñ bi tegoon tegoon ci mag ñu baax ñépp mooy di sampi daara di jàngal nit ñi alquranul karim leen jàngal xam-xam diine waaye di leen tarbiya di defar seeni xol di defar seeni jikko euh, di leen yar yar bu rafet def ci ñoom ay teggiin ci ay dëkk ak i daara yu baree baree bari yar ci mbooloo mu baree bare baree bari moo xam ne nekk nañu ay royukaay nekk ñoo xam ne réew mu ñu yëngatu du ñam ci saxal fa jàmm waaye dañ koy indaale ak yokkute dañ koy def ak yokkute kon taxaw taxaw bu rëy rëy ci jàngale ak yar te jàngale yar moom la yonent bi sallallahu alayhi wa joxoon sëriñ bi ndigal ci mu liggéeyal ko ci diine ji rabbi asxaabaka bil himmati la ko wax ginnaaw bu mu ko waxee rabbi asxaabaka bi tadrisi wal iqra ñu bari rabbi asxaabaka bi bi bi bil himma lañ gis waaye am na riwaay boo xam ne ci rabbi asxaabaka bi bi tadlisi wal iqra moo ca jiitu doo ko wax wa rabbi wa rabbi sa fekk asxaabaka bil himma kon da ko digal mu boole jàngale ak yar ca liggéeyale yàlla ba defaraat diine ji defaraat jikko yi ak xol yi saxal jàmm ci réew mi njabootul eh, baax bi wutu ko ci ba Cheikh Mamadou Fall mu taxaw ci taxaw bu rëy ci ñaar yooyu ci jàngale ak yar waaye taxaw taxaw bu dëgër itam ci jiite njaboot bi ci siraatal mustaqim ci di digle lu baax di tere ak safaan di leen tënk ci kilifte diine taxaw yi diine ci ci ci réew ngir mu àqu jàmm wax naa jëmbët pas-pas ci xol yi def ci ñoom ragal yàlla def ci ñoom jikko ju rafet waaye dama fàtte bokk na ci itam saxal tënk nit ñi ci kilifteef tënk nit ñi ci kilifteef nit nit ku nekk am kilifa gu mag kilifa te di ko déglu di ko roy mu lay digal dam la war a digal nga di ko jëfe di la teral nga la nga di ko bàyyi loola mooy saxal jàmm xam ngeen ni suñu suñu Sénégal gii ñu nekk ñu koy faral di wax mennum réew la ci réewu Afrique yi di mennum réew ci réew jullit yi waaye lu bari liy xew ci réew Afrique yi ñu ñuy soreel xewu fi lu bari liy xew fi waaye la tax xewut ginnaaw su baaxul suñu borom bokk na jàpp tënku gi ñu leen tënk ci kilifte nga koo gis Sénégal gii rek ñu ci ëpp am nañu kilifa bu ñuy déglu bu leen ne jóg leen ñu jóg bu leen ne leen ñu toog ñu naree jóg jëm ci safaan ñu ne leen toog leen ñu toog su boobaa jàmm mu xew waaye bu loolu amuloon ñu nekk fekk seen jiiti àdduna yi kese rek ñooñu di am ñeneen ñu leen di ñu wujjeeg ñoom ñuy xëccoo ci seen biir te amul ku naan toog leen ñuy toog lay xew ci réew yépp a fi xew kon tënk nañu ci kilifteef ak ci biar ak teggin loo bokk ñu taxawaay bi Cheikh Mouhamed def digal nit ñi li ñu leen war a digal ñu koy topp mu leen tere na nga xamee ña ko jiit noonu ñu ko doon defee ñu topp ci ginnaaw itam doon ko defee noonu muy ñu war di jëmbat muy dëgër di law ba faaw kon boobu taxaw ci diine nga xam mënta ñàkk ci réew ngir jàmm am fa Cheikh Mouhamadou Fadil bàyyi na ci waar wu yaatoo yaatoo yaatoo waaye am na ay mbir yu aju ci politique yoo xam ne bu amul bu sottiwut bu ñu ko yéwénalul cim réew jàmm du fa am mooy réew day am day moom boppam réew bala faa jàmm am day moom boppam di jël ay dogalam ca nam ko ca nam ko gi nam ko nam gëne ca moom te am sañ-sañu seet la gën ci moom mu di ko def mu di ko defal boppam yilif boppam mooy al istiqlal wa siyaada wataniya indépendance ak souveraineté euh, national mooy réew mu moom boppam am réew su moomul boppam ay jaamur not ko di ko jëfandikoo di ko jëmale fa ko soob mooma réew bu fa ak daal amoon it jàmm amu fa ndax ña fa nekk nekkuñ ci sago nekkuñ ci seen coobar kon réew day moom boppam dooga mën a am jàmm réew it day am kilifteef bu dëgër bu ko ŋànk mooy état bu amul ku nekk yilif sa bopp lu neex def kenn du ne déet jàmm du am moo tax boroom xam-xam yi di wax ne ñeent fukki at yi njiit jiite jiit lu dëng jiit loo xam daa dëng yilit am réew ñeent fukki moo gën benn bis boo xam ne am réew am ko kilifa kon loolu état mënta ñàkk ci am réew ngir jàmm am fa état boobu it bu amee daa war a am lu ñuy ay institution ay banqaas yuy ŋànk doxalin ya banqaas bu nekk di doxal la ko war na mu ko ware am ku jiite ak ñu ko jàppale am ñoo xam ne ñooy xool liggéeyub ñooña ak di ko càmbar ak di ko jubbanti am ñoo xam ne ñooy féetewoo àtte ñi dëngoo ak a juba ak a ak am ñoo xam ne ñooy xoolal mbooloo mi lii xew leen ko wax te bañ caa wax lu noonu yëpp ay bànqaas yu mënta ñàkk ci état ngir mu dox na mu waree ba mën a saxal jàmm ci am réew bu loolu amee état ba war naa amal li ñuy tuddee war naa sàmm àqi mbooloo mi ak seeni liberté àqi mbooloo mi ni ku nekk liy àqam ñu fexe ba mu jot ci la xam ne mooy moom la sañ a def it ñu bàyyi ko mu di ko def ñu fexe ba it loolu mooy euh, mooy damaanul xurriyaat wal xuquuq al amma ñu fexe itam waa ci réew mi seen àq ci nekk ca lam ci alal ji ci biir réew mi ak xam-xam bi ñu fiy joxe ak yar bi ak liggéey bi ak sañ-sañ yépp rek ku ci nekk du ci réew mi rek la nga ca war a am ñu dina ko dox loolu ñuy wax al adalatu ijtimaiyya dañuy fexe ba am ci ñu réew loolu lépp nag mbir yi politique la fii nag ci jamonoy Cheikh Mouhamadou Fadel njëlbeenu xilaafaam fekkoon na réew mi nekk ci biir noteel bu génn gut ndax ci 1945 la wootu Cheikh Mouhamadou Moustapha dem nañ ba 1960 fukki at ak juróom yoo xam ne Sénégal ci noteel la nekk euh, waa réew mi di def fi pexe ak góorgóorlu ci lu leen di may ngor ci lu leen di goreel luy tax ñu moom seen bopp Cheikh Mouhamadul Fadil taxaw bokk na ca am na taxaw bu am solo bu mu daan taxaw ci li ci taxawaay boobu yi pexe yooyu ñu def réew mi jot boppam moom ko li jàmm sax bi bokkoon na ca ña ko daa taxawee te amoon ci taxawaay bu dëgër nag bépp yëngutu walla jëf ju ñu daa def ngir Sénégal moomaat boppam ma nga ca xolu yëngutu ba ak jëf ja bokk ca dañu njëkk a leeral ne ci jamono jooju yi eh, ak gi ci topp eh, mbooloo mi fi nekkoon di yëngu ci kilifteefu àdduna mbooloo mi kilifa yi ñaar dañu woon kilifa yi diine ak kilifa yi àdduna kilifa yi diine yi ñoom la doon dellu ci ñoom ci wàllu diine waaye kilifteefu àdduna gi tubaab yee ko yoroon biñ fi nammee jóge te war koo joxe dafa am ñu doon waajal ñoo xam ne ñoo leen jàngal yar leen tàggat leen waajal leen ba wóolu leen ci ne bu ñu leen fi bàyyee euh, dana baax ci ñoom dana baax ci ñoom nga xam ñoom ñi yor bi ñuy joxe ñi nga xam ne bu ñuy dem moom moom la ñuy ñoom la ñuy jox mooy ñu waajaloon ngir jox leen ko te mooy ñi ñi jàngalal boppam yar leen waajal leen ñi nga xam ne jàngalu leen yaru leen waajalu leen te ñe leen jàngal yar leen waajal leen safaanub liñ bëgg ñoom ñii ca la ñooña lañ leen jàngal yar leen ca ñooña moom waaju ñëwoon ngir jox leen kilifteefu réew bi ñooñu nag ñaari xalaat ñaari tànn ñaari bëgg-bëgg ñaari mbir daal lañ mënoon a def ñoom kilifa yi diine ñaari taxawaay lañ mënoon am ci bi réew mi moom boppam ci seen diggante tubaab yi joxe nguur gi ak ñañ koy jox benn ñoom ñu ne ñoo ñun ñoo ci ñoo koy jël ñoo koy jël kenn du ko jox kenn ku nun ndax noo moom sunum réew te mbooloo mi ci réew mi nun lañu gëm ñun la ñuy déglu ñun la ñuy topp kon kenn du fi jox kilifteefu réew pour dul ñun ñii loolu ab taxawaay la mën a doon mbaa nga ne man buñ ma ko joxul te xam naa ñi koy jox ëllëg séentuwuma ci ñoom ñu taxaw taxawaay ba ñu war a taxawee kon man daa jàpp sa njàmbur dama jàpp saak njàmbur ci joxe ji jàpp sama njàmbur ci kañ koy jox na muy doxale ñaar taxawaay yi ngay mën a am mbaa bu nekk ci diggante bi Cheikh Mouhamadul Fadil ci xam-xam bi ko yàlla joxoon ak ñor ga ak xel mu mat ma mook kilifa yi mu fi nekkaloon ñu ci ñu ci bari gisoon ne taxawaayu laaj nguur ci jooju jamono fitna ju rëy rëy rëy rëy lay jur te du am benn njariñ ndax du yàgg bakka koy joxe moom jox la ko te bakkan yu bari mën na cee rot alal yu bari sànq ci lu bari yàqu ci te war taxoo fitna tan bàyyi noonu it jàmbure ci kañ koy jox ak na muy doxale loola mooy bàyyi bàyyi sa njaboot ak keneen fu ko neex jaar lu ko neex def loolu it kilifa gu responsable du ko def léegi nag ñoom ñu tànn sama fan tànn moo ñoom bokkal xalaat boobu ne ñoom kat du ñu laaju duñu laaj nguur waaye duñ taxawit di seetaan ndax nguur gi kat seenu jaww dong la ñuy jiite mu ne ci xool xew-xew ya bokk ci ña doon dox ngir Sénégal moom boppam xam ngeen ne général de Gaulle bi ñëwee Sénégal ci di réew mi waaj a am indépendance yaakaar naa 1958 la doon ñëw na ba Touba gi gisee ak Cheikh Mamadou Fadil te xam gu mu xam ab taxawaayam ci biir réew mi ak poids ci politik ak économique ak sociale looloo tax mu ñëw ci moom gisee moom waxtaan ak moom waxtaan ak moom kon Cheikh bokk na ci ña doon dox ak ña doon dox aka wax ngir réew mi moom boppam te moom boppam googu daa bokk ci liy saxal jàmm cim réew kon taxaw na taxawaay ci amal ngo gorek Sénégal bokk ko ña doon dox dox bañ demee ba réew mi war a moom boppam ñu war a joxe nguur gi nekkul taxaw rekk di seetaan ne kuñ ko jox baax na dafa seet moom ci jëmmam li mu ki mu wuutu ak li mu koy liggéeyal ak njaboot gi mu gi ci ginnaawam daa xool fan la seen njariñ di féete ci kan ci ñi laaj boobu ca kooka la njariñul liggéeyam ak liggéeyam bi muy liggéey sëriñ bi ak njabootam bi kon kan ci kan ci ñoom la njariñ la féete mu daldi wax lii maa ngi ko déggee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha mu sëriñ Fallou ci waajtaay ko sa rajab waxtaan doon séq ak rajo RTS ku ñëwoon ci moom di wax di ko laaj ci taxawaay suñu Fallu ci digganteem ak ki jëkk a jiite réew mi mu ne te loolu defe naa ñëpp ko dégg feneen ak feneen te lu lu histoire saxal mu ne Sëñ Fallu ba ñaar ñu doon xëccoo kilifteefu réew mi tàmbalee di wër réew mi ngir laaj baati nit ñi kàddu yi nit ñi dane maa ngi leen di wax ki ko nar a jël balaa yegg si liggéeyu Sëñ Tuubaa bii ci pénc mi képp ku ñëw wane sa pas-pas ci ne danga ci jàpp yaay ki nar a jot yaay yaay ki nar a jiite yoon am ku njëkk a ñëw waxi waxam ba daaneel tuddut liggéey bi mu yëkkati alal jox ko ne ko nga wëggee ko sa fas yi nga say fas yi ak ñi nga àndal mu nangu la mu ko jox mu daal di dem keneen ka mujj jël réew mi ñëw ba mu agsee da ko ne maa ngi ñëw waaye euh, fii yéen xam naa ne nit ñu sell ngeen ñoo xam ne politique du seen mbir waaye dama ñëwoon doon sàkku ñaan ndax damay la bokk ci ñi laaj réew mi waaye bu ma ci jotee sa liggéey bii seen naal wii ci pénc mi naa ci taxaw ba mu sotti ba mu ko waxee mu ne ko demal nga waat ko li nga wax nii demal ba ca baraag ba baraag bi fa tedd ki nekk boroom baraag baa nga woon ci biir baraag ba mu ko demal foofu nga taxaw yëkkat sa loxo wax ne maa ngi waat ne lii may sàkku su ma ci jotee dinaa taxaw ba liggéey bii sotti su fekkee su ma ci jotee du ma ko du ma ci taxaw bu ma ci jot ba mu ko waatee mu daal koy bàyyi mu dem yàlla dogal na mu jot ca kon taxaw na ci taxawaayu ñay laaj mi tam ci jàpp ne njariñul mbooloo mi ak lislaam ji ca la féete xoolut diine kooka ndax jàpp na ne ñoom ci wàll googu ñoo ci bokk gis-gis ñi ñi nga xam ne ñëpp ñoo yëngu ci politique bi ñoo bokk gis-gis ci ne yoonu diine nekkul ci doxalinu réew mi loolu lañ bind juboo ci ne képp kuy doxal réew mi bul ci déglu lislaam bul ci déglu yàlla loolu ñoo ci bokk de kàcce ne julli laa ka wax leneen ñoo ci am mu mu gis ne kon foofu li ci des mooy maslaha rek kon intérêt maa ku ci yor sa njariñ ginnaaw li mën a goo ko mën koo fànq lii lu fi ne la te mënagoo ci dara kon boog foofu bu ñaari lor teewee ñaari ay bu teewee te te ñàkk nga benn dal ci sa kaw yos billahi taala dañ naan tànnal ba ci gën a woyof mooy irtikaabu axafi dara rey ni mooy bu fekkente ne bàyyi bañ maandu maandu ci politique jàpp ci sa njàmm doo ci def doo ci dindi doo ci doon dara luy xew sa yow néew ja bu ko defee ñoom nga bàyyi leen lu leen neex def fu leen neex jaarale njaboot bi lu leen neex def ci ñoom ak nga bokk ca ñay samp nit ka taxaw temm ci di ko xool bu naree àgg fenn fi jël na ko déete waay defe naa ne looloo tane waaw dé déete waay looloo tane daa am sama benn mbokk moo xam ne dana bu élection bi di def naan ñii laa jël da ngay xool bu fekkee ñépp bu fekkee baax nañ bu fekkee am na ku baax ak ku bon tànnal ku baax ka bàyyi ku bon bu fekkee ñépp bon am na ku bon am na ku bon a bon am na ku bon a bon a bon kon ka bon rek moo tax ne ka bon a bon ka bon a bon a bon ka bon ka bon a bon a ko tamit loolu mooy istiqaam ak fi dara ni Cheikh noonu la def ba am taxawaay kon bu dëgër ci politik ba bokk ci ña samp ka jëkk jiite am sa dogalit ak sañ-sañ ci moom bopp mu naree yegg fenn fi mu ne ko déetawaay taxaw euh, ne ko art ko bu naree am lu mu jëfandikoo njaboot bi itam mu mën a dox diggante bi sañ-sañ ci moom ndax moo ko wóor na ko ne bokk na ñi ko fi teg te bu ko bëggee teg yi mën na koo teg ba tax am na bis mu am lu mu ko sant mu ne ko ah, sëriñ bi loolu mënee su ko ndax yoonu réew mi nangam mu ne yoon laa dégg yoon téléphone la ñu wax kat yoon nga waxa ah? daal ne ko xëpp ne kub karaj téléphone bi déglu ko mu àggale waaja daal di jaxasoo daal di woote woo ay ay conseil am ne waaye man damaa jaaxle sëñ Fallou dafa am lu ma sant loo xam ne man xamu nu ma koy defee te nee naa ko def li ma ci gën a jaaxal mooy dama ko tàmbali di ko leeralal mu coupé téléphone bi ma woowaat ko wuyuuma nu may def am ñu ko ne ah yow yaay njiitu réew mi defal li nga bëgg a def li mu lay sant yoon santaan mënu ko gàttal bu ko def am fu ne ko ah yow xam nga de dégg nga defal lim la sant mu dal def la mu ko sant te loolee lu doon saxal jàmm la ci biir réew mi ak ci biir njabootu lislaam taxawaay yooyu kon yu mel na doon taxaw ba bokk ci ñi dëgëral état boobu ñu doon wax ñu ko samp ba mu sampoo ba noppi mu taxaw ci bu koy dëgëral kam kam kam ànd ne kam jàpp ne moom moom la àndal mu ne ñëpp daleen ko xool di leen ko jàkk di leen ko jàkk te di ko xool te bu leen xapp xappal dana ñeme lool ci position bi nga xam ne moom la taxawee ngir xam la ne ci gannaaw taxawaay boobu ci ay njariñ ci réew mi ak ci yoonu murit ak ci njabootu lislaam gépp kon taxawaay bu am solo boobu la taxawee ci wàllu gii nga xam ne mënta ñàkk ci réew te bu amul jàmm du mën a am ci am réew bu dee ci wàllu koom-koom am nay taxaw yi ñu war a taxaw ci at ci réew ñu ngi koom-koom ci koom-koom ndax jàmm mën fa am ndax nit ki moom bu fekkente ne euh, am na lum soxla lu jàmp te fajuwul xiif na mbaa mu mar mbaa mu rafle mbaa mu feebar mbaa dara te amul lu mu ko fajee mën naa jóg def lu mu bëgg te def jalgatul moo tax jalgate bu nit ki lekkee ba suur am ku xiif ci wetam kooku xiif ci wetam mën naa xëy jaxase àdduna yi kee lekk ba suur kon bu nit ki balaa jàmm am ñépp dañuy bokk lekk ka naan bokk di solu bokk di faju bokk am jàmm moo tax faw koom-koomu réew ñu dëgëral ko loolu si am fàll liggéey na ci liggéey bu rëy rëy xam ngeen ne taxawaayam ci liggéey ñu ko sëriñ bi santaane lislam santaane ko noonu liggéeykat bu mag a mag a mag la woon gor na ay àll ci ay daara ci dëkk yar mbooloo ci liggéey ak jaamu yàlla di wootaale bi yépp it ci woowu yoon te mooy yow leen sëriñ bi tegoon leen ca soññ saa bu jamono ma saa toll fii daana jël waxukaay bi ñëpp bokk daal ne waaye jóg ci sow bi waaye ci ñëw ci penk bi jóg leen sow bi ñëw ci penk bi dem liggéey dem ci tool yi te xam ne liggéey boo xam ne dañ la koy liggéeyloo doo ci amee loo mën a yor dem leen ngeen liggéey kon daana taxa taxa bu rëy rëy ci saxal ak dëgëral koom-koom réew mi ngir jàmm mën a am ci wàllu dundii ni diggante mooy social daana dimbale néew doole yi ak ñi seen loxo jotu seen dinaw ak ñi wéradi ak ñi amee laago ak ñi nga xam ne dañ leen a tooñ jalgat seen àq daana leen taxawu bañ yëg ne ci yëf yi lañ bokk am nañ ci àq daan taxaw tamit nekkoon nit koo xam ne ku yaatu dënn la te mën a xajoo di yar ñun ci ñu yëg ne ñoo bokk réew mi yëg ne ñoo bokk diine ji la jiitu ñuy bokk aw askan mbaa ab tariqa kon li ñuy wax farfarloo ci wàllu xeet mbaa ci wàllu diine mbaa ci wàllu këri diine loolu daana ko xeex ci yaatu dënnam aku mën a xajoom ak di wane ne ñëpp benn ñépp a bokk réew mi bokk diine ji daan wax ne moom mooy Sénégal moom mooy Sénégal bu ko waxee kon mooy ñëpp la fi nekkal ñépp lay taxaw kon na ñëpp xam ne ñoo bokk Sénégal boobu nga xam ne moom mooy moom loolu kon taxawaay bu am solo Ah, noonu la doon taxawee itam ci wàllu sàmm aaday réew mi aaday lislaam ji yi nga xam ne mooy aaday luy tax nit am jàmm te di ko saxal ja fa mu fa mu nekk kon ngir bañ a téye kilifa yi ci lu yàgg ak jataay bi ñu xam ne mbooleem fànn yi nga xam ne dañ koo war a saytu ba mu dëgër ngi jàmm am cim réew fànn gu ci ne taxaw na ca taxawaay ba ca war def ci jëf ju rëy ngir ngir loola mën a sotti ba jàmm mën a am ba loolu tax na ci coobaree suñu boroom ak ndimbalam diirub li mu nekk ci xilaafa gi yàlla suturaal na réew mi jàmm xew fii Sénégal xeexu fekk meneenum réew li ñuy wax rébellion mooy ñu bokk ci réew ba noppi jóg ne dañoo bëgg a génn ci àtteb réew mi beru amu fi guerre civile mooy mbooloo mi bokk men réew di xeex ci biir di xeex ngir ay xeet mbaa ñuy xeex ngir diine mbaa ñuy xeex ngir ay tarixa wala ay kër ci biir tarixa loolu lépp yàlla dogal na ci mbaaxam ak ndimbalam amul ci diirub ak nekkam te loolu taxawaay bu am solo bi mu taxaw ci jëmbët jàmm bokk na ca la ko def ginnaaw coobal suñu borom ak ndimbalam waaye bokk na ca la ko taxawaay bii itam di tax mu man ko bokk na ca la ko waral mooy xam-xamam xam-xam bu ba bu doy sëkk bu bari bu doy sëkk bu nekkoon ci moom ak xel mu matta ñor te rafet mu mu amee woon ak jikko ju rafet ju mu àndeek ñépp ak yaatu dënn ak xajoo bu mu meloo woon loolu dimbale na ko ba mën a taxawe taxawaay yi nga xam taxawe na ko boole ci nag am baatin boo xam ne lépp lu taxawaayoog zaahir lu mënta lijjanti ci zaahir lijjanti ko ci baatin boole ci itam barke bu yàlla def ci moom ba tax bi mu toogee rek yërmande yàlla buntu yërmande ubbiku ah taw bi bari xéewal yaatu nit ñi ah, am xéewal yaatoo yaatu yooyu yëpp ah, ak personnalité nag ak autorité autorité maanaam dëgër dëgër ci fam nga xam lu mu taxaw ne du am moom du am bu jaree ñu génne nit ki dëkk bi danañ ko génne am na ñu génne ci dëkk bi ñun ne nañ dañ leen génne sànni leen ci am na ñu jàpp ñu yóbbu leen ne nañ leen caw booree ku fi bëgg a def lu dul noonu mu taxaw ne la doo fi def yooyu yëpp ay mbir la ak ay melokaan ak yooyu biir ak yooyu bitti yoo xam ne tax na mu mën a taxawal taxaw yi mu taxawee biir am nekkam nag ay tension politique am na fi tension sociale am na fi kenn fàttewul crise u 62 ci diggante ñi doon ngànk réew mi ak gerewu 68 mu ci jaay yi yépp am na fi ay tension yu mënoon a taalum réew waaye taxawaayam ak taxawaay même bokkal diine ji euh, ak lam lamboo ci baatin ak ki lijaaba xam su yëf yi ne tecc mu tàllal loxo boroomam te doon ko boroomam déggool doon ko déggoo boroomam jàng nañ ci xasida gi ubbee mu ci doon tàllal loxo boroomam di di di tiitu ak a ñaanal waa réew mi yooyu yëpp ak mbir la yoo xam ne taxoon na bu tension amee itam rek su boroom dana ci wisum sedd kon lii lépp day day ay ay ay ay tomb yu néew ay joxañ rek la yuy wane ne taxawoon na daal taxawaay bu dëgër ci luy saxal jàmmi réew mi ak lu koy dëgëral ci mbooleem fànn yi tax yépp jàmm na am ci réew jàmm na taxaw ci am am réew xam ne taxawaay yu mel noonu moo ñu wax ci kenn ku nekk ak la nga ca tolloo kenn yëmutoon moom ci ñun ñi ca yooyu taxawaay waaye ku ne am na loo ca man ci di wax jàmm ak di ko def ak di ko wax ak di ko yéene te sëriñ bi neewoon na assalaamatu wal aafiyatu fi niyatil xayri wa qawlil xayri xayri wa laazimatil xayri jàmm ak salaam mi ngi ci nga jàmm di ko wax di ko jëf te sax kon maa ngi tënk fii kàddu bi jégalu guddaay bi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu